nee na mu teg ko nag ci loxol sëñ xaadim mii nga xam ne moo fi toogal sëriñ Cheikh Thioro mii xalifab sëñ Amar te njëkk fee wax nag kàddoom yi rafet yi nga xam ne sëriñ bi nee ko sa kàddu yii de mënoon naa jeexal jotaay bi ndax la làmb na mboolem lu waroon a wax nee na mi ngi nuyu sëriñ Sidi mi nga xam ne yàlla def na. xew-xew bii dal ci moom te moom itam mu ànd ci ak ngëm yàlla ànd ci ak nangu dogal bi te loolu mooy li am solo ndax kat loolu yi la ñu sëriñ Tuubaa jàngal te moom seen njaboot gépp noo la leen seen baay yare tegu ci aw yoon nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey di taxawu njaboot gi nee na naga daaw rek bi mu ñëwee ndar moom Serigne Sidi ñëw na fa siyaare si ko ànd ak teraanga yu baree bari te nee na keroog la ko njëkk a gis muy borom Pastef lool di boromam taxawaay keroog laa ko gisaat mooy ba mu ñëwee ca tool ya ànd ci xew-xew bii. nee na mi ngi nuyu nag bu baax Serigne Bamba. mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Ahmad Tasrif Sougou. di ko jottali kàddu yu Serigne bi. ndax kat moom sëñ Bamba xali euh, xalifab sëñ Ahmad Tasrif Pastef ba nekkoon ca baayam moo nekk ci moom. ndax sëñ Ahmadou Tasrif. Serigne Touba la nekkaloon. jege woon sëñ Touba lool. xamoon ci sëriñ bi lu bari. xamoon it ci sëriñ Tuubaa lu bari. waxtaanam. waxtaanam. ku fa mas a teew. boo fa jógee. da nga amaat yëg-yëg bu rëy ci sëriñ Tuubaa. ndax wax ju am solo ji nga xam ne sëriñ bi daan ko fàttali. te moom bu ko daan wax ni ko ko sëriñ Tuubaa ko daan waxee. da daan wax ne sëriñ Tuubaa mi ma dégg ñu koy waxtaane day ak ma ma xamoon ci njaarim. wuute na lu bëree bëree bëri. ndax moom daa dund sëriñ bi ñàkk ay caaxaan lool. maamam maamam sëriñ jéeri. maamam sëriñ jéeri. dégg naa ci sëriñ son yi bu. mu wax na bi mu wàccee ab liggéey. ndax moom da doon def. ku judd. bu dee góor. mu tudde sëñ Tuubaa. bu dee jigéen. mu tudde soxna jaara moo ko jëkk def ci yoon wi te booba giseegut ak sëriñ te booba giseegut ak sëriñ Touba ci Zahir. ba yàlla daje mu daje ak sëriñ bi. kon kooka xam ngeen ne. ab cëram ci yàlla. kenn xamul fu mu àgg. bi mu fi bàyyi ko nag. taxawu ko ba noppi. ba ñu taxawu ko ba noppi. sëriñ Touba laaj sëñ Mbàkke bu sa na ko. ndax gisoon nga sa bàjjan. ndax gisoon nga sa bàjjan soxna jaara. soxna jaara. sëñ Mbàkke na ah, ah, ko. loolu de yow mii rek yaa ko mën a gis. mu ne ko ñëwoon na ci jullee ga de loolu sëriñ son yi ba daana ko nett lu bari kon yéen li ngeen doon ci yoon wi xam ngeen ko bu baax te ñëpp xam nañ ko nangul leen ko di nuyu nag sëriñ Ahmed Sougou mii nga xam ne moom it jàmbaar la lool li ne ci sëñ Bamba rek a ne ci moom ndax sëriñ Bamba sëñ Ahmadou doomam ji doon wax léegi dama yéegaat yéemaat mbirum nee na bi muy wax moom Serigne Bassirou daal yéemaat mbirum sëñ Touba. ndax lu gën a mujj. ndax lu gën a mujj rek. gën a gëm sëñ Touba. gëm sëñ Touba. ndax moom baayam. ndax moom baayam. dafa dafa dafa jeex ci sëñ Touba boobu. daa jeex lool ci Serigne Touba. mënut a wax ak yow ñaari baat te jooyut. mënut a wax ak yow ñaari baat sëñ Touba te jooyut. ñëpp nag mu jaxasoo ñëpp mu jaxasoo ñoom. waaye ndeysaan bi mu wéradee. waaye ndeysaan bi mu wéradee. moo tax ñëpp la métti. moo tax wéradeem gi ñëpp la métti. kon nañ ko ñaanal rek mu gën fee yàgg. waaye ñu xam ne defaru sëñ Tuubaa du yàqu. ndax moom mii kàddoom yi ku ko dégg. ak li nekk ci moom ci xam-xam. ak nga dégg ni mu waxee. nga xam ne mbirum sëñ Tuubaa du yàqu de. sëñ Ahmadou yow it ñu ngi lay gërëm. di la ñaanal. sun borom saafara yaram wi. lu ma sa xew ci waa ndax yow kat lu ma sa xew ci waa kër sëñ kenn du la fa jiitu kenn du la fa ràññee ngir sa taxawaay. kon ñu ngi lay sant yow bu baax. yaakaar naa 1996. yaakaar naa ne 1996. wala 15. wala 15. laa njëkk a ñëw ci këram gi. laa njëkk a ñëw ci këram gi. yàgg na kon moom xam naa ko bu baax. di nuyu sëñ Mamma. di nuyu nag sëñ Mamma. nga xam ne moom diggam ak moom. adduna sépp xam nañ ko. boole gi nga xam ne sëñ Tuubaa moo leen ko boole. man naa wax ne dëkk bi ba mu jeex. ginnaaw sëñ Saliou. ginnaaw sëñ Saliou. daanaka man rek dafay siyaare kon loolu. te moom. ku ko xam ku ne. ku ko xam ku ne. xam ne boo seenee jëmmam rek. xam ne nitu yàlla dëgg ngi kon moom it ñu ngi koy ñaanal baax. di sant njaboot gépp. ci xew-xew bii nag nga ne moo fi am. ndax ñëwoon ngeen fa ca tool ya. ndax ñëwoon ngeen keroog ca tool ya. ba ngeen ma waxee itam. ba ngeen ma itam. dama leen waxoon na leen. dama leen a waxoon na leen. Serigne Abdoul Ahad de daa am lu mu daan wax. da daan wax ne bu dara xewee. na ngeen fexe ba ma yëg ko. waaye na may saafara nag. bu ci seen yoon nekk. kon sëñ bi yég na ko. Cheikh Mouhamadul Mountakha. yàlla def itam nag. moo leen wool boppam. moo leen wool boppam. fekk sëñ Sidi mii la njëkk a jot. biñ ko baa ngi lay bëgg a jot ci numéro. ko nee sëriñ baa ngi lay bëgg jot ci ab numéro. am na bëkk néegam bu sant si la bu leen di woo. bu lay woo jox la ko. moom pas seefam daa tax. daa fay téléphone am. ne waruma wax ak sëriñ bi ci téléphone. ba mu ko ko waxee. boo demee nga ubbi téléphone te déglu. sëriñ bi ne ko boo demee ubbil téléphone bi te dégloo. ndax sañoo ko woo. ndax sañoo ko woo. ndax man mii di wax ak yow du ma woo sama kilifa. kat du ma woo sama genn kilifa. waaye ndagam nag moo la woo wuyu ko. kon sëriñ bi moo leen wool boppam. waxal leen boppam kàddu yam leen di wax. ci wax leen ni nga wax leen ni nga xam ne mbir mi ci ngeen ko war a delloo ci yàlla. ak ni ngeen ko war a muñee. ba noppi wax leen ne danaa yebal Bachir mu ñëw ba ci yéen. danaa yebal Bachir mu ñëw ba ci yéen. mu nemmiku si leen. masawu leen ci coono yi. ci xew-xew bi. kon tey jii kat ndigale ma andi. ñëwuma ci sama turu bopp. ñëwuma ci sama turu bopp. ñëwuma ci sama tànki bopp. ñëwuma ci sama tànki bopp. ndigalul sëñ Tuubaa rek ma fi andi. kon ñor na ko. ndax sëriñ bi xam ne na maa nga woon ca tool ya. waaye daf ma ne bàyyi li ngay def lépp ca dem. kon loolu. lam làmb moom xam lam làmb moom sëñ bi xam na ko. li ci des nag. li ci des nag. ñoo xam ne alxuraan dafa wax ne. ñu xam ne alxuraan daa wax ne. macha an takrahu shay'an. macha an takrahu shay'an. wa lakum. léeg-léeg daal nga bañ dara. te li ngay bañ moo gën ci yow. an tuhibbu shay'an. wa an tuhibbu shay'an. lakum. asa an takrahu shay'an. asa an wa huwa xayrun lakum wa xasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum léeg-léeg it ngay bëgg dara te fekk li ngay bëgg moo gën a bon ci yow xasa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kasiran léeg-léeg mbir metti ci yow muy ab nattu nañu xam ne jullit moo tax ab nattu jóg yéefar nag mbugal rekk tax a jóg moom kon ki ne ci yoonu yàlla kookee nag la sëñ suñ borom di nattu kon alhamdulilahi rabbil alamin biñ leen yaree yéen ba ngeen xamee ko noonu yal na leen yàlla saxal ci loolu ñi ngi leen di sant bu baax ni ngeen xam ne na ma ko waxe woon Baye Fall yi démb genn njaboot rek la ba ñuy jóg itam lu mel nii taxu leen a jóg kon li ñuy wax accident. tey dogalub yàlla. tey dogalub yàlla. loolu suñu borom a ko tudd. tubaab accident la koy tuddee. tudd tubaab accident la koy tuddee. bu gisee xar baax. kon lii nag. na ngeen xam ne ab nattu la ci yéen. di dogalub yàlla. di dogalub yàlla it. boo xam ne kenn mënutoon tee mu jaas. kon yàlla na ko fi yàlla yemal. ba lu mel nii moom bañ a xewati ci yéen. ndax nañ xam ne Touba. la ci sëñ Touba daa wax. la ci sëñ Touba daan wax. adduna sëpp. adduna sëpp. dana def ak daay. def ak daay. ba tàkk ba tàkk. ku ci bëgg a mucc. ku ci bëgg demal ci sama dëkk. demal ci wax Touba. waxoon na it ne. waxoon na it ne. ku fa sam xel andiwut. ku fa sam xel andiwut. saw xel da ko samp ñëw fa. kon nag nañ kon xam nañu xam ne. fi adduna toll. fi adduna toll. la la la la sëriñ Saliou daan wax. daan wax. Eh, président Abdoulaye Wade la ko waxoon. président Abdoulaye Wade la ko waxoon. ci ay mbir yu xewoon. ci ay mbir yu xewoon. ak i xalaat yu jugoon. ak mu ne ko mu ne ko. yoon wi de. yoon wi de. lu am ci ay soppe. am ci ay soppe. am na ci noonu lu ko am na ci ay noon lu ko ëpp. kon nag dëkk bi itam. dëkk bi itam. ñi fi dëkk nañ xam ne. ñi fi dëkk nañ xam ne. tawfeex la ju leen suñu tawfeex la rek ju leen suñu borom defal. ju ñu suñ Tuubaa defal. joo xam ne sëñ Tuubaa moo ñu ko defal. yàlla defal ñu tawfeex. yàlla defal ñu tawfeex waaye na xam ne àdduna sépp waaye nañ xam ne àdduna sépp ñi bon ñëpp ñi ñëpp seen siibal Touba seen siibal moom Touba la buñ sañoon buñ sañoon Touba saa suñ xëyee Touba saa yuñ xëyee dégg fi luñ fi dégg fi luñ fi wër tanu dégg moo tax lu fi xew moo tax lu fi xew lu néew néew lu néew néew danañ ko ëcc ba mu àgg ci àdduna danañ ko ëcc ci àdduna sépp ngir bëgg a wane ngir bëgg wane ne Touba nii la mel waaye loola nag yàlla du leen ci far yàlla ndax bu fekkonte ne. ndax bu fekkonte ne. du pàgguteefu sëñ Tuubaa. du pàgguteefu sëñ Tuubaa. kon dëkk bi du agsi. kon bi du agsi fii. ndax luy gàllankoor rek def nañ ko. ndax lépp luy gàllankoor ab dëkk rek def nañ ko ko. waaye du agsi mukk. waaye li ci des nag. li ci des nag. sunnatullaahi fil ardi nag. sunnatullaahi fil ardi nag. moog dundug nit ñoo ànd. naka jekk danaa am. naka jekk danaan am. te ba addunay tukki it day am. ndax sëñ Tuubaa da daan wax ne. adduna. adduna. du jag mukk. du jag mukk. waaye du yàqu mukk. waaye du yàqu ñaan lu agsi nag. waaye lu agsi nag. fexeel ba rafet ca loola. kon loolu rek am solo. kon loolu rek ci am solo. waaye ñi dëkk ci dëkk bi waaye ñi dëkk ci dëkk bi nag. ñun ñëpp nañ takkaat suñu laxasaay. ñun ñëpp nag nañ maase takkaat suñu laxasaay. te gën a góorgóorlu te gën a góorgóorlu. te xam ne dëkk bi ñëpp fi ñëw. te xam ne dëkk bi nag ñëpp a fi ñëw léegi. sëñ Tuubaa da koo sancoon. ndax sëñ Tuubaa da koo sancoon. am lu mu bëggoon mu mel ci dëkk bi. am lu mu bëggoon mu mel ci dëkk bi. ñaan ko suñu borom it. ñaan ko suñu borom it. ba sunu borom may ko kon Touba lu muy yaatu yaatu. kon Touba lu yaatu yaatu. du dëkk kër la. du ab dëkk nag kër la. ak kër nag. kër nag. ku nekk sa kër. ku nekk sa kër. na nga bëgg mu mel na nga bëgg mu mel ni. yaay taxaw ba loola mel yaay taxaw ba loola mel ko. kon Cheikh Mouhamadul Mountakha. kon Cheikh Mouhamadul Mountakha. andi wu lu yees. andi wu fi dara lu yees. lam fekkoon kilifaam yi doon fekkoon kilifaam yi daan ko sàmm rek. loolu la loolu rek la fas yéenee sàmm. lépp nag. te lépp nag. tënku ci ay teggin. tënku ci ay teggin. la ma waxoon démb rek. la ma waxoon démb rek. bii di xiyaali. bii di xiyaali. bilaa bukaay. sëñ Tuubaa ko ñaanoon. ndax suñu borom yow yàlla nga ma may. nga gindi sama njaboot. nga gindi sama njaboot. ci lu leen di dóor ci lu ñu leen di dóor nag ay yar. nañ ami teggin. te dusu leen dóor yar. te dusu leen dóor ay yar. loolu sëñ Tuubaa ko ñaanoon. ñaanoon fi yërmande. ñaanoon fi yërmande. wax na ko fu bari ci wax na ko ju bëree bëree bëri ci ma dabul foofu. kon ñun ñëpp.

ñoom ñoo bokk dëkk bi. ñoom ñoo bokk dëkk bi. waaye bokkuñu jublu. waaye nag bokkuñu ak jublu ci. ndax ñun pëstee fa ñu fi andi. dëkkaaleeg sëñ Tuubaa ñu fi andi. dëkkaaleeg sëñ Tuubaa ñu fi andi. ñoom koom-koomum adduna leen. ñoom koom-koomum adduna fi andi. kon nag kon nag. ñoom ñoo ñi nga xam ne. ñoo ñi nga xam ne. ñoo amub rax ci biir. ñoo amub rax ci biir. ba ci lii rek. ba ci lii xew rek. feeñ na ci. ñoo xam ne feneen leneen leen tax a ñoo xam ne leneen leen tax a jóg. te loolu ci la seytaane di ci la seytaane di jaare. ndax lii Amadou doon wax léegi. ndax lii Amadou doon wax léegi. li tax ñoom ñu dellusiwaat. li tax ñoom ñu lu mel noonu moo ko mooy ñeneen ña fa dëkkul. dëkkul ci kër gi dëkkul ci daara ji. dëkkul ci daara ji. taxaw ci tëli bi di taal. taxaw ci tëli bi di taal ay pono. ñooñu leneen leen tax a jóg. ndax yéen ñi am kilifa. ci tànku ci seen digalu kilifa. leleen seen kilifa yoo wax rek ngeen def te bu ngeen ko defutoon tey ay bakkan dana fi rot te jëlele naa njabootu sëñ Tuubaa te jëlele naa njabootu sëñ Tuubaa ndax sëñ mii mu dal ci kawam ñooyam rek sëñ Tuubaa kon kon xam ngeen ne ab Baay Faal du jër lor di ko jëmee ci setu sëñ Tuubaa jëlele naa sëñ Sidi waaye sëti sëñ jéer yii ja Baye Fall du jël lor di ko jëmee ci ñoom. moo tax ba leen sëñ bi joxe ndigal it. wër nañ seex sëpp. wër nañ seex sëpp. waxtaan ak ñoom. ku ci nekk ñu leeral la li leen bi sant. ndax ñoom it loola lañ ci jublu woon. bañ agréeroo. kon nag. nañ xam ne. nañ xam ne. njabootug Seex Ibra. Seex Ibra. ak njabootug sëñ Jéeri Waadaan. ak njabootug sëñ Jéeri Waadaan. sëñ Tuubaa boole na leen ba noppi. sëñ Tuubaa de boole na leen ba noppi. adduna leen tàggale. adduna nag du leen tàggale. du leen tàggale. du leen tàggale. bakkan du leen tàggale. bakkan du leen tàggale. saytaan du leen tàggale. saytaan it du leen mën a tàggale. ndax Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke. daana wax ne. Touba Serigne Touba defar na ko ba mu jag. Touba day Serigne Touba defar na ko ba mu jag. kenn mënatu koo kenn mënatu koo yàq. nee na képp ku boo yàq nee na képp ku jóg nag ngir bëgg koo yàq. yaa cay yàqoo. mënees na fee jéem a yàq. mënees na fee jéem a yàq nag. ba yàqoo ba yàqoo fi. waaye mënees na fee jéem a defar. waaye it nag mënees na fee jéem a defar. ba defaroo ba fi. moo tax képp koo xam ne. moo tax képp koo xam ne. mas nañoo gis mu fiy doxee nu jaaduwul. mas nañoo gis muy doxee ci Tuubaa nu jaaduwul. wala muy yëkkati kàddu yu jaaduwul. wala muy yëkkati kàddu yu jaaduwul. ak mu jëm lu ñaaw lay doon. ak mu jëm lu ñaaw lay doon. kon yàlla nañ ci yàlla musal. suñ borom nag lam mayoon sëñ Tuubaa du ko nangu mukk kon nañu góor góorgóorlu te sax ci ak taalibe incha allahu sëriñ bi daa fatu woon waaye bu ñibbisee ak jàmm rek yéen ñëpp dana leen gis waxtaan ak yéen lam war a wax ak yéen loolu nag ci sëriñ bi la ne fi mu ma yamloo rek falaa sañ a yam